الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokki جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi dellu si di leen nuyu di leen ndokkeel ci weeru koor wi nga xam ne génn nañ ko ak korite gi nga xam ne lu jiitu muy ñëw mm, xol yëpp jaax jaaxle woon nañ tiitoon nañ ak mbas mi mu taseet ak jafe-jafe yi mu taseet naka la ñuy ooree koor gi ba am sax ay baat yu jugoon naan est-ce que sañ nañoo ñàkk a oor waaye ñu xamoon ne mbir yëpp delloo ko ci yàlla rek parce que yàlla rek mooy dëgg te moom rek moo man ñu taxaw ci laa hawla wala quwata illa billahi al alil azim yàlla def mbir moomu jàll na koor gi jàll na korite gi jàll na ci jàmm ca nam gën a rafetee ci noo xam ne nii euh, mën naa am sax mu dàq na nga xam ne ni noonu la daan demee ci temps normal yàlla moomu nag moom la ñuy taxawaat ci buntam di ko wax ne ko rek ñu ngi taxaw ba léegi ci laa xawla wala quwwata illa billahi al alil azim ñun mënuñu xamuñu jéemuñu lu may li ñu sant ñu ngi bàyyee suñ bopp lépp ci sa loxo di ñaan nga téye ci suñ loxo jubbanti ñu joyanti ñu dëgëral ñu sàmm ñu musal ñu ci mboolem balaa yi ak nattu yi yépp te mujj gi yépp yàlla na nekk sa ngërëm loolu rek mooy li nga xam ne moo am solo li ci des nag mooy euh, yëg ngeen ne euh, gàmmu gi mi ngi waaj a ñëw te ren dañoo bëggu teel a jug teel a wax ak nit ñi ci gàmmu gi balaa li ñu daan dal di ñu dal toog ba mu des ñaari semaine ñuy tës tës tës fu nekk ñu di ci dugg te dana sotti waaye nag dëgg-dëgg bu fekkee ne dangaa jug ci ñaari semaine mu sotti kon yëg nañ ne buñ jógee ci ñeenti weer dana gën a rafet te Medina amut lu ëpp gàmmu gi li may njëkk a wax ak nit ñi ci gàmmu gi nag mooy xaj na dinañ def benn budget global wax li ñu soxla ci gàmmu gi yëpp lan la waaye comme budget boobu pareegut te am na lu urgent lu taxaw mooy tirbine bii nga xam ne moom la ñuy gàmmoo ñu daan ko tànt at mu jot di ci sonn nit ñi di yéeg di di ci jël ay risque am ñu ci daan daanu am lu nekk daan ci xew sëriñ Maamun ci mbaaxam nga ci yaatoom ga mu dem ba bitim réew jënd fa tànt boo xam ne mu ngi ko jëndee woon cinq euh, cinq cinq cent millions euh, cinquante millions mu jëndee woon ko cinquante million kon bu fekkee ne pays bi am na valeur boo xam ne nii li muy symboliser rek moo gën a am solo mooy gàmmu gi ak tirbine bi ak foofu nga xam ne fa la bàyyi daan toog fa nit ñi daan toog ak moom mu leen di waxal xamal yonent bi sallallahu di leen ci tëbbu barab bi màggaayam ak symbole bi nga xam ne moom la tànt bi am waaye nag ak valeur bi nga xam ne moom la am ci maanaa waaye valeur bi nga xam te moom la am ci alal jiñ ko jëndee Eh, yàlla na yàlla fay sëñ jëfam yu rafet yooyu noonu te def ko ci balance su euh, sëriñam muy Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waaye nag xam ngeen ne lu yàgg dem ay at yéegal ak wàccee takk ak tekki dana am jamono mu am problème bâche boobu nag moo toll ci fi mu ne am problème ñu ne buñ xaaree ba budget bi pare xaj na mu sooxe parce que liggéey bi dafa laaj temps moo tax daal ñu ne léegi liñ bëgg mooy joxe nañ ndigal président ansaruddin din ci sama cadre gu ñàkk solo suma rakk Cheikh Abdourahmane Niass xam nañ ko ci pays bi ci itte ju mel noonu ak yu mel noonu euh, ñu taxaw ci côté euh, sonorisation bi nga xamné ñu ngi ko doon ut pour gàmmu gi pour Medina désormais am sonorisation bo xamné bu mucc ayib la té ñokoy momal sen bop ci côté lolu buggu nañ képp ko xamné yaangi yaa ngi fo outé ngeureumal utee turbine bi taxaw na bâche bi taxaw na laajuñ kenn sasuñ kenn dara xeebuñ dara yéemuñ dara lépp lu waaye am te yàlla tax te nga bugg koo def rek ngir li tirbine bi représenté ak ni ma présenté noonu ñu ngi lay ñaan nga jokkoog Cheikh Abdourahmane wala nga jokkoog man wala euh, noo mun a def daal ba nga xam ne danañ ko bokk dajale luy tax ñu gaaw defar ko balaa gàmmu gee ñëw ñu def tirbine boo xam ne vraiment dana rafet ba àddina bi yëpp xam ne ñun suñu amee suñ patrimoine danañ ko sàmm loolu mooy li nga xam ne moom laa bëggoon a wax di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp euh, numéro téléphone bi nag bu dee sama bos la moom 577 euh, la 578 52 33 578 52 33 77 la 77 578 52 33 boobu amut Orange Money mais après danañ ko organiser def benn kii boo xam ne bu dee numéro bi am Orange Money la 578 la 66 08 waaw waaye li ma gënal mooy daal ñu jokkoo ñun jokkook Abdourahmane moom xam na am nañ ay réseau ak mboolem fu gaa yi nekk ñu xam ne loolu tribune bi rek moo ko tax a jóg ñu te dafa urgent te dafa yàkkamti ñu jukki ko ci biir programme mu gàmmu gi pour bugg taalibe yi taxaw ci mu ngi noonu yaakaar naa ne nag lu mbir mi métti métti métti métti lu nekk nekk ci ci ci ci mbas lu liggéey ñàkk ñàkk ñàkk ñakk amut kenn ci yéen ku ñemee wax ne ba ma ba mbas mi amee léegi damay arrêté sama dépense parce que mbir mbas mi dafa am damay arrêté dootuma fay courant ndax mbas mi amut dootuma fay ndox ndax mbas mi amut ñun ñëpp dootuma jënd ordinance ndax mbas mi amut kon nag dootuma defal bàyyi ngir mbas mi loolu nañ ko moytandiku te comme taalibe yi bëri nañ macha allah suñ ko bokkee ku nekk bu joxee lim am lum tuuti tuuti mbooloo mi yëpp bokk ko lu yomb lay doon loolu mooy li nga xam ne mooy déclaration bi ñu doon wax di gërëm ñëpp waaye nag di gërëm Kossy TV di ñaan mboolem kuy taalibe bàyyi na bàyyi xel ci Kossy TV parce que mi ngi liggéeyal pay bi te di ko liggéey liggéey bu mucc ayib. te utuñ ci laajuñ ci kenn dara dañ koy def ngir yàlla lu leen waaye jox ñu jël waaye lu leen waaye joxut tamit ñu def ko def ngir yàlla kon nañ ko bàyyi xel di ko euh, seet ñu mën a jëflante ak ñoom waaye ku mënut loolu yi tamit del ñaan yàlla mu mu mu màgg mu avancé te ñi ci nekk yi tamit yàlla sàmm leen te ñu man may leen gërëmal bàyyi wa ma zalika àllah bi aziz allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa